maa ngi leen di nuyu bu baax man maa ngi tudd Serigne Ba président fondation euh, bu crédit mutuel du Sénégal kon ni nga ko leen ko xamee yéen ñëpp crédit mutuel du Sénégal entreprise sénégalaise la entreprise nationale la muy jëflanteex sénégalais yi daanaka mën na 30 ans ñaar fukki at fanweeri at ñu ngi nekk ak population sénégalais yi di leen jàppale ñuy jël si ñun bor di denc si ñun ñun tamit ñu leen nii ñu leen jàppale seen financement yi li siy ruus duñ ko séddoo suñu biir parce que 1 million doon séddoo bénéfice du takku. moo tax ñu jël bénéfice boobu ñu am hmm? gannaaw bu ñu génnee suñu charge yëpp ñu jël bénéfice boobu dañ koy jàppale Sénégal état bi si wàllu éducation si wàllu santé si loolu lañ jëlee lycée bu Bambilor xam ne ne que dañ toll foo xam ne ne te Covid bi amoon daaw wane na ko wane na dina am benn instant boo xam ne nit ñi duñ toogati toogatuñu woon si classe yi dañ nekkoon seen kër di liggéey te boo bëggee nag yow nga bëgg dabee ñi nga xam ne ñoo nekk yeneen dëkk yi nga bëgg tolloo ñoom niveau il faudrait véritablement au delà li ñu lay jàngal si biir classe bi nga am beneen source boo xam ne de de connaissance booy am maanaam ordinateur boo xam ne da lay dimbale nga xam d' abord ni koy manipuler également boo bëggee yow xam lu xew fa fële préparer say leçons def ay recherche boobaa da ngay ordinateur daf si am solo am na solo fii am na solo kër ga moo tax ñun ñu ne xaaral ñu xool Bambilor lu fa manqué ñu defal leen salle informatique dina leen ordinateur yu mucc ayib bu ñu paree ñu xoolaat leneen lu mën a def mais li am solo mooy pour tey. dañoo ñëw pour inaugurer salle informatique bi nga xam ne leen defal ay ordinateur def ko tabax bu baax ordinateur yu baax pour permettre élèves yi ak professeurs yi ak administration yi suñ soxlaa euh, dara ñu liggéey ko rapidement à travers l'ordinateur ëpp na juróomi million si wàllu tabax bi ak si wàllu ordinateur yi parce que comme ni ma la ko waxee tabax bi dañoo bëgg mu nekk tabax bu baax pour respecter normes sécuritaires yi mais également pour nekk loo xam ne neex na gis-gis beneen mooy ordinateur yi mënoon nañ dem jënd si marché bi ordinateur yo xamné ne cherut comme dañuy wax naan ordinateur fixe cherut non non cher na budé da nga dem jënd fu baax fi fo xam day am garantie day am lo xamné ne véritablement nit ñi koy jëriñoo duñ dem ba ci biir muy planqué wala mu am yeneen difficulté donc motax ñu jënd taw dafa taw bu baax wala jënd ordinateur yi mucc ayib pour permettre lor ñu bénéficier aussi. partenariat mom c'est un partenariat tacite du nek partenariat bo xamné dañ koy signer wala ne lor dañ fi ñew chaque année dedet lolu amuñ sañ-sañ bobu amul sañ-sañ tamit ne ne deex na fii déedéet mu daal ñu ngi nii nag ay soldaaru Sénégal lañ ay soldaaru Crédit Mutuel lañ fondation bi Crédit Mutuel daf ko teg pour mu koy jàppale di ko jàppale si wàllu askanam bi nga xam ne wóolu nañ ko comme Crédit Mutuel nag moom mooy euh, kër gi moom la Sénégal yi wóolu di si dénk su amee lu ruus ñu jàpp si donc comme ñun partenariat bi ñu am ak sénégalais ngay wax te waa Bambilor si sénégalais lañ bokk partenariat boobu am ak sénégalais day continuer maintenant quant à dire que lycée Bambilor bi mu fi jógee dañuy kii boo génnoon léegi Bambilor dem Fouta di nga fa gis école bu soxla parce que am nañ programme taawal ban sax yoo xam ne parce que seetlu nañ début directeur d'école yu bëri ak proviseur yu bëri dañ doon wax naan dañ am problème mu taawal ban sama administrateur général de la fondation muy Abdou Thiam ñu taxaw ma koy gërëm lu baax si liggéey bu am solo muy liggéey parce que man damay joxe damay joxeñ rek moom mooy dagg moom mooy exécuté moom am nañ programme Sismar li ma lay waxee nii. dañuy dem après Alaaji Paate fii si Kër Massar tabax nañ fa benn classe dañ koy dañ équipé nañ ko ay taalement yu sismar pour fexe rek lépp lu ñuy def ñun dañoo bëgg mu nekk qualité bëgguñu ëllëg ñu dem ñu ne aadee ah, li li ñuy def baaxul oo nañ fi télé wax dañu bëgg lépp lu ñu leen defal rek mu nekk lu baax loolu mooy suñ taxawaay te incha allah ñu ñu gën a jàppale nag jàppale seen crédit mutuel jàppale fondation yomb na mooy nit ñi di ubbi nit ñi bàyyi fa seen yi di bàyyi fa seen salaire xam ne ne que salaire bi nga fay bàyyi li mu lay jural au delà de li ngay am dina la jural lu mel nii nga moo gën nga koy yóbbu si entreprise boo xam ne bu dajalee bénéfice da koy yóbbu bitim réew parce que patriotisme sénégalais il faut ñu bàyyi xel kiy dimbale baykat yi di dimbale nappkat yi dimbale toutes les couches sociales kooku nit ñi dañ ci war a bàyyi xel pour ñoŋal li mu am li mu am su bari su gënee takku yu mel ni dina bari mais su nit ñi di eh, néewal doole kër gi. kër gi li muy joxe tamit social da koy néewal doole parce que c'est au prorata de ce que la ñuy distribuer nit ñi loolu daal laa wax boo tamit invité ñëpp te di ñuy jël tamit nañuy fay ñuy fay bor yi muy deerax muy kii yëpp yëpp nañuy fay bor yu crédit mutuel parce que boo fayee rek fay ba fii lay ñëwaat si population yi donc loolu am na solo ñu bàyyiwaat xel ñëpp ma def leen yéen ñëpp ay ambassadeur crédit mutuel comme l'a dit monsieur le prof d'anglais que ñëpp ñu xam ne que parce de Je m'appelle Abdou Cham, je suis l'administrateur général de la fondation du Crédit Mutuel du Sénégal. Crédit Mutuel du Sénégal a mis en place euh, un outil qu'on appelle la fondation donc pour lui gérer également le volet purement social comme l'a dit le président tout à l'heure on est sur euh, une activité financière génératrice maintenant de revenus. Et on aurait souhaité quand même, le Crédit Mutuel du Sénégal souhaite également que ces revenus également puissent également bénéficier aux sociétaires et bénéficier en même temps aux, populations. C'est la raison pour laquelle une fondation est mise en place pour assurer tout ce qui est besoin émanant des populations. la fondation va essayer de, euh, de son mieux de pouvoir soutenir les populations sénégalaises en fonction de ces, des différents objets qui sont éligibles au niveau de la fondation. Nous intervenons dans le domaine de l'éducation, euh, nous intervenons dans le domaine de la santé, nous intervenons également dans le domaines de détection de jeunes talents et dans la culture également. C'est ce qui motive également notre venue ici avec l'apport de la Fondation pour la construction d'une salle informatique entièrement équipée d'ordinateurs neufs. Voilà le sens maintenant de notre euh, venue aujourd'hui au niveau de Bambilor. Actuellement, le lycée comptait plus de 800 élèves. 800 élèves, donc ça veut dire que 800 élèves ont bénéficié de cette salle donc euh, salle bi 10 machines sont am mais nous def suñu kentelay katam pour organiser Nous jëm leen diviser en groupes, même si bu fekkee fait euh, 15 jours de def cours mais nañ leen organiser pour que l'anarchie euh, anarchie bañ a nekk ci biir euh, biir salle bi lu covid bi donc euh, ñu ngi jéem respecter prot protocole comme par exemple le port de masque bi euh, boo ñëwee par exemple à 8 heures di nga gis ay surveillant ak euh, gardien bi di invité euh, élève buy dugg sol sa masque euh, kii raxas sa loxo donc balaa nga dugg classe ñu ngi ñax tamit professeur yi bu ñu nekkee ci biir classe yi ñu obligé élèves yi ñu ñu sol seen ñu sol seen masque léegi ñaari ñaari aspect yooyu la ñu mën a respecté mais distanciation physique bi moom mënuñu ko respecté parce que dañu déborder ak effectif yi effectif yi dañu bëri parce que am na élèves yoo xam ne sax dañuy toog à trois mais port du masque bi avons ñu ngi ñax élèves pour nous sol sen masque aussi euh, bu ñuy dugg école bi gis ngeen lavoir yu nekk ci kanam donc bu ñuy dugg systématiquement dañuy raas seen loxo. fait jafe yi wax naa lycée bi dafa touti 10 euh, classes physiques quest la lañu am pour 800 euh, élèves donc je pense que li dans le futur dañ ko transformer en CM ñu construire lycée bu bess digne de son nom parce que ren salle euh, informatique ou CMS nous permettent de soulager tout. mais l'année prochaine si nous avons autant d'élèves orientés autant d'élèves orientés en en seconde nous avons ko ci discours 417 élèves nous envoyés en seconde l'année prochaine nous avons ko effectivement. gérer effectivement. donc c'est ce sama jafe-jafe te comme lycée bi dafa nous avons projection par exemple il euh, kii bi un projet pour construire fofu non euh, terrain de basket terrain de basket pour construire une euh, salle à piloter, c'est-à-dire pour nous gagner espace nous construisons construire salle à piloter. à l'image par exemple li sous préfecture comme ça nous construire en hauteur nous avons gagné au moins 4 classes avec quatre bureaux surveillants Nous ko régler c'est actuellement, la actuellement population bi day Yoko aussi euh, zone B, c'est une zone d'urbanisation euh, On ne l'a pas évalué mais chaque année nous recevoir un cas de transfert Yo xamné euh, parents d'élèves ñu lay wax ne man dama toxu su fii Wokam la nekkoon wala de la laa dama bëgg ngeen jëlal ma sama donc ça veut dire que non seulement il y a l'augmentation naturelle de la population mais il y a aussi la dynamique d'urbanisation donc bu ñu deful fi dara fi ba deux ans dañuy étouffer donc ce que nous jafé bi parce que ñëpp fi la ñuy toxu ñëpp fii la ñuy toxu si aussi euh, la y a l'accroissement naturel de la popu de la population. kontaan si li CMS def si si si lycée bi salle informatique euh, xalé soxla nañ ko donc lolu mënuñu lu dul remercier len et gërëm tamit euh, fondation CMS par rapport ak lolu di ñaax xale aussi xam li tamit ñom dañ ko wara entretenir topato ko euh ba nga xamantene du mën a ndax outil bu baax la. tey comme dama fi teew en tant que président de la l'AP ba pare teew fi en tant que représentant du maire boo leen xoolee lycée bokkul si li nga xamante ni nguur gi jox na ko maire yi comme bokk si mais teewul ñi fiy jàngee ñëpp suñu njaboot lañu loolu nag maire bi moom ñëpp gis nañ ko taxawaayam à l'assemblée député la euh, maire la. donc mu ngi def lu mu mucc ayib di ñaan pour que Bambilor mën a am lycée boo xamante ne lycée bu baax lay doon loolu mo ngi ci mi ngi ci tànk yi toujours man man na ci témoigner lu bari donc mi ngi ci dox dañuy ñaan yalla loolu muy dox mu soti xam nga parents d'élèves yi bokk nañ ci comité bi nga xamanteni moy comité de surveillance moy protocole yi ministère yi tek pour wane ni war nañuy saytu nakal affaire bi di doxé mais fi Bambilor boo seetloo xale yi dinañ raxasu dinañ takk masque dinañ def lepp yene nga gissal sen bop bopp bon li xawa dess rek moy par rapport ak euh, distanciation physique bi. Euh, pour nombre de salles de classe yi dafa tuuti ak table banc yi loolu remarqué nañ ko mais bon masque bi wala fi aussi ku donc dañuy ñaan rek euh, bañ je me nomme Fatoumata Bintou Souma élève en classe de terminal L2 et président du gouvernement scolaire. Ah, c'est vraiment important cette euh, nouvelle inauguration de la salle informatique. D'après nous, avant qu'on puisse posséder ces matériaux, il était vraiment dur. Du fait qu'on dérangeait tout le temps Mouchembo, le bibliothécaire, du fait qu'on vient les soirs le déranger pour les recherches et partir chez les uns les autres, nos amis. Même s'ils ne nous disaient pas qu'on les dérangeait, mais nous, on savait à l'intérieur de nous qu'on dérangeait nos amis, afin de les emprunter des livres, ceux qui ont des téléphones pour faire des recherches. Maintenant, avec cette nouvelle initiative, on peut vraiment en profiter afin de, afin de ne plus pouvoir déranger les autres. comme le proviseur nous l'a dit, on va l'utiliser pour nos recherches et seulement pour nos recherches, pour développer nos études, nos euh, études d'apprentissage, et enfin de ne pas pouvoir les utiliser pour faire n'importe quoi comme entrer sur Facebook, les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Euh, de, l'utiliser à bon usage, c'est ce qu'on voulait dire.